الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين mbokki jullit yi ñoo ngi dellu si si jotaay yi ñu amoon si thalathatil usul di ñetti cosaan yi nga xam ne dafa war si jullit bu nekk mu xam ko ci jotaay bi paase ñu taxawoon fi borom téere bi di duggee ci ñett cosaan yooyee ngir leeral ko bindu tey bi comme dañ koy faral di defee dañ koy jàng ñu su jógee jaase ci ak leeral borom téere bi di cheikh islaam muhammad ibn abdul wahab rahimahullahu taala di woy di wax ni fa ida qiila laka man rabbuka fa qul rabbi allahu alladi rabbaani wa rabba jamica alcaalamina binicmatih wa huwa macbuudi laysa lii macbuudun siwaah waddaliilu qawluhu tacaala alhamdu lillahi rabbi alcaalamiin wa kullu ma siwa allah aalamun wa ana waxidun min dalika alaalam loolu mooy bindu tey bi gannaaw ba nga xamee ni ci jotaay bi paase waxoon na ñetti cosaan yi ak solo si mu am jullit bu nekk war koo xam fii la boroom téere bi di duggee nag ci ñetti cosaan yooyee ci ak faram fàcce ak leeral dëgg-dëgg benn bu ci nekk naka la jullit bi naka la ko jullit bi di xamee waaye naka la ko jullit bi di taxawee ci ak jëf ndax loolu mooy li koy jëriñ fii ci àdduna waaye ëllëg àllaaxira loola ko fay jëriñ commencé ko ci bàmmeel comme niñ ko waxee woon ba nga xamee ne loolee lañ koy laaj ci bàmmeelam te la ko fay musal mooy xam ngim ko xamoon fii ci àdduna ak taxawee ko ci ak jëf nañ ko waxee woon ni ko borom bi subhanahu wa taala waxee yenente bi sallallahu alayhi alihi wa jàng aaya bi ci ba muy wax ci fitna gi ñuy fitnaal nit ki te mooy test giñ koy teste ci bàmmeel bi yàlla subhanahu wa taala waxee yuthabitu allahu alladina amanu bilqawli thabiti fi wa fi yàlla subhanahu mooy saxal ñan lay saxal ñi ko gëmoon te gëm googee comme niñ ko weesoo mënta nekk mukk lu dul dafa tegu ci kaw xam-xam faalam annahu laa ilaha illa allah wastaghfir xam-xam mooy indi ngëm googee moo koy saxal jaam bi góorgóorlu ci àdduna nekk gi muy nekk ci àdduna góorgóorlu ci xam-xam boobee xam-xam boobee di saxal ngëmam ak di ko suuxat ñooñee la yàlla subhanahu wa taala di saxal fii ci àdduna ak àllaaxira te la jiitu ci àllaaxira mooy bàmmeel laaj dañ lay laaj ci bàmmeel ngir nga am lay gu sax lay gu wér mucc ci li nga xam ne mooy test boobee malaaka yi di la teste mooy xam-xam bu wér ba nga amoon fii ci àdduna waaye nga tegu ci ci ak jëf kon duñ def lu dul jaar ci li nga xam ne borom téere bi wax na ko fii ci cosaan bu njëkk bi gannaaw ba mu ko boolee ñett yi benn bu ci nekk da koy jël dal di koy faramfàcce mu ne fa ida qiila laka man rabbuk léegi nag buñ la laajee ana kan mooy sa boroom ana kan mooy sa boroom laaj boobee mënees na ko mënees na la ko laaj fii ci àdduna comme niñ ko waxee woon waaye faw nit ki bu faatoo nekk ci bàmmeelam laaj boobee lañ koy jëkka laaj fa qul rabbi bu boobaa lan ngay tontu mu ne bu boobaa danga naan kii sama boroom mooy yàlla subhanahu wa taala alladi rabbaani moom boroom boobee nga xam ne moom yàlla subhanahu wa taala moo may teete di ma wërsëgal di ma toppatoo wa rabba jamia alaalamina bi moom yàlla subhanahu wa mooy borom bi nga xam ne mooy toppatoo mboole mbindeef yi di leen wërsëgal di leen eh, toppatoo loole mooy tontu bi nga xam ne mu jiitu si la muy tontu saxal li nga xam ne mooy rububiya yàlla subhanahu wa te mooy bind gi mu bind ak toppatoo gi muy toppatoo mbindeef yi waaye dina ñëw si kanam ñu xam ne loolu rek doyul am na leneen la say topp ndax lii di mbindug yàlla subhanahu wa taala ak toppatoo gi muy toppatoo jaam yi dafa am lu muy waral la muy waral mooy wéetal ko ci ak jaamu ndax lii di wéetal yàlla ci ak rububiya ne yàllaay bind yàllaay wërsëgal yàllaay def nàngam loole moom kenn du si ràññee jullit ak yéefar yéefaru màkk yi gëmoon nañ loolee waaye fiy ràññeeku di am ci diggante jullit ak yéefar diggante kuy wéetal yàlla ak ku koy bokkaale mooy gannaaw ba ñépp saxale ne yàlla moo bind ñépp saxal ne yàllaay wërsëgal ñu wéetal ko nag ci ak jaamu di ko jaamu moom kese bañ koo bokkaaleeg dara borom boobee nga xam ne nee na moom moo la bind di la wërsëgal di la toppatoo si jëlee la ba nga amul ba nga nekkul nekkoo dara yàlla subhanahu wa taala amal la ci sa biiru ndey si étape ak ay étape ngay jaar si ay étape di dem si beneen étape yàlla subhanahu di la toppatoo foofu di la wërsëgal foofee ba keroog ngay génn ci kaw suuf ñëw ci àdduna say wayjur gis la loolu tax wayjur wi nga xam ne yàlla subhaanahu wa daf koy jox doom bi doom ji juddoo ñu gis ko daldi bëgg lool waaye nga gis ñoo xam ne dañuy jékki-jékki commencé ko fu nañu yóbbu ko fa ak di ko takkal ay mbir ngir lan nee nañ ngir sàmm ko ak ngir aar ko te xamuñu ne ki nga xam ne moo leen ko jox di yàlla subhanahu wa jiitu na leen ci lu bare bare bare bare bari fa mu nekkoon nga xam ne ñoom mënuñu ko woon a gis moom yàlla subhanahu wa taala moo ko doon sàmm di ko toppatoo ba mu ñëw si kaw suuf ngel la waay kaka daan sàmm ak di ko toppatoo ba jox la ko yow way jur wi amal ngëm yàlla ak wóolu ko gu day ni ne moo koy sàmm ba nga jublu ci moom ak wéeru ci moom wóolu ko yaakaar ko ba ñu wékku ci keneen ak di wéeru ci keneen ak di def ay mbir yoo xam ne sa diine tere na la ko ngir rekk nga ne da sàmm sa doom jooje walla danga koy musal di ko takkal ay téere ak i di ko yóbbu ci ay bërëb waliyaadu billah di bokkaale ak ki nga xam ne mooy borom bi subhaanahu wa mi la ko jox falamma aataahuma saaliha jacala lahu shuraka fi ma na ko yàlla subhaanahu wa taala waxee ci bi leen yàlla subhaanahu wa taala doom mu di ko sell ku baax ñu wutal yàlla subhaanahu wa taala moroom ak ndendane dendande si doom joojee di bokkaale yàlla subhanahu wa ci kookee te lu jiitu lool day ñoo doon ñaan yàlla subhanahu wa taala yal na leen yàlla wërsëgal doom yal leen yàlla may doom yàlla may la ko nga wëlbati ko di ko bokkaale liñ jublu si loolee mooy yàlla subhanahu wa mooy toppatoo nit ki di ko wërsëgal bu ñëwee fii si àdduna mu koy wërsëgal di ko toppatoo di toppatoo mbooleem mbindeef yi moo tax mu ne alladi rabbaani wa rabba jamia alaalamina bi niami si lekk ak naan ak ngelaw gi ngay noyyee ak mbooleem luy wërsëg yàlla subhanahu wa moo ko yeggale ci yow lépp lu ne si kaw suuf lépp lu fi nekk ci ay monde mondi doomu aadama yi mondi rab yi jéeri jéeg géej gi mboolem luy mbindeef yàlla subhanahu wa taala moo koy toftale di ko toppatoo wërsëgam di yegg ci ñoom am man hada alladi yarzuqukum in amsaka rizqa ana kii nga xam ne moo leen di wërsëgal di yàlla subhanahu wa taala waaw bu téye woon wërsëgam nag bu yàlla subhanahu wa taala fu ñu jëm taw bi bu ko yàlla subhanahu wa taala téye gàncax gi bañ a sax ngelaw gi ñuy noy yee bu fekkoon maanaam nit ki amatul sax lu mu noyyee waliyaadu billah ay simili yu néew mu tàggoog bakkanam wa ma min daabatin fi l rizquha amul len luy dox ci kaw suuf raam ci kaw suuf lu dul ne yàlla subhanahu wa taala moo koy wërsëgal kon dalikum allahu rabbukum faabudu kookee di seen borom subhanahu wa taala neen ko wéetal si ak jaamu loolu tax mu teg si mu ne wa huwa maabudi comme nuñ ko junjee woon sànq ci ne du doy rekk nga gëm ne yàllaay bind yàllaay wërsëgal yàllaay def nangam yàllaay def nangam boo xamee loolee xam-xam boobee si lay yóbbu kii di def lii di borom bi subhanahu wa amul keneen ku mën a def loolu ku moom kon jaamu ko moom kese bañ koo bokkaaleeg dara tax mu ne wa huwa maabudi kon mooy ki may jaamu moom yàlla subhanahu wa duma ko booleeg keneen si jaamu gi ma koy jaamu leneen si jaamu gi ma koy jaamu comme niñ ko junjee woon sànq si loolee la ki wéetal yàlla subhanahu wa di tàqali ko ak ki koy bokkaale mu ne laysa li maabudun siwa aw keneen ku may jaamu ku dul moom subhanahu wa duma jaamu ay malaaka duma jaamu ay yenente duma jaamu ay nit ñu baax duma jaamu garab duma jaamu aw doj duma jaamu lenn kudul yàlla subhanahu wa ta'ala laysa li maabudin siwaahu subhanahu wa ta'ala kon lii mooy saxal li nga xam ne mooy wéetal yàlla di àq bi gën a màgg si àq yàlla subhanahu wa ta'ala am si yow jaam bi ba tax na kon tont gi ngay tontu ne yàllaay sama boroom la muy firi dune ne rek yàlla bind déedéet xam nga yàlla déedéet waaye moo doon ki ma doon jaam tontu ba loole lay ëmb maanaam ñu laaj la kan mooy sa boroom jubaluwuñ si ne kan moo la bind kan moo la doon wërsëgal déedéet lool doyul waaye kooke lan moo doon sa taxawaay sa digganteeg moom gannaaw bu nga xamee ne moo bind mooy wërsëgal mooy def nangam mooy def nangam lii mooy tontu bu wér bi te mooy ne moo doon ki ma doon jaamu moom yàlla subhanahu wa daanuma jaamu keneen kudut moom loolee nag ni ko làmmiñ bi di waxee noonee la ko jëf di dëggalee nit ki bu taxawee di julli kabbaar jàng faatiha di wax ci la muy jàng iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in yow yàlla yow rekk lañuy jaamu loolee la iyyaka na'budu di firi jiital gi ñu jiital iyyaka soog see teg naabudu dafay firi li ñuy tuddee alxasr si làmmiñu arab te mooy euh, wéetal ak saxal li nga xam ne mooy jaamu yàlla subhanahu wa taala yàlla kese ne yow rekk yow yàlla yow rekk lay jaamu yow rekk lañuy jaamu waaye lii di ak ndimbal si yow rekk lañ koy sàkku yow rekk yaa ñu mën dimbali ma ne nit ki buy julli di taxaw di jàng loolee loolu dafa war a dëggu ci ay jëfam noonee muy jullee di sujuudal yàlla subhaanahu wa di ko jaamu mu génnee ci julli ga noonee lay continuer ci dundam mbooleem dundam ay waxam ak jëfam lépp nekk li nga xam ne mooy wéetal yàlla subhaanahu wa du bokk mukk si ñi nga xam ne dañuy julli kàbbaar di wax loolee ba noppi buñ génnee si julli ga di jaamu keneen ku dul yàlla subhanahu wa taala si seeni wax mbaa ci seeni jëf léegi loolee la say tegtal comme ni mu ko waxee ne yàlla subhanahu wa mooy bind mooy wërsëgal mooy toppatoo mbooleem bindee fii mu ne wa dalilu qawluhu taala alhamdulillahi rabbil alamin yàlla subhanahu wa taala dafa wax ci aaya bi nga xam ne mooy aaya bi jiitu ci alxuraan gannaaw bismillahi arrahmani arrahim aaya ba sa jiitu ci kaamil bi fi yàlla subhanahu wa taala di wax alhamdulillahi rabbil alamin te mooy it comme ni ko cheikh saleh ibni fawzan xafidahu llahu taala waxee mooy lu mujj ci li waa aljana di waxit waa aljana la ñuy mujjee wax buñ demee ba dugg aljana comme ni ko yàlla subhanahu wa taala waxee wa axiru daawahum an alhamdulillahi rabbil alamin la ñuy mujjee wax mooy alhamdulillahi rabbil alamin kon mu si la yàlla ubbee li nga xam ne commencé li nga xam ne mooy mbindeef alhamdulillahi alladi xalaqa alsamawati wal ard wa jaala alzulumati wan nuur waaye si lay tëjee li nga xam ne mooy mbindeef mu ne wa qudiya baynahum bilxaq wa qiila alhamdulillahi rabbil alamin ëllëg bu yàlla attee diggante jaami loole mooy li mujj di mu sant gi ñuy sant borom bi subhaanahu wa taala mu ne fataxa biha alxalq wa xatama wa xatama fa hiya kalimatun azima di baat bu mag di baatub cant ñeel na yàlla subhaanahu wa taala moom mi nga xam ne mooy buur di boroomi mboolem mbindeef yi mbooleem monde yi yàllaay seeni boroom yàllaay seen boroom yàllaay seen buur moo leen di toppatoo moom yàlla subhanahu wa taala eh, al nekk ci alhamd moom la ñi jàng li nga xam ne mooy làmmiñu arab di wax al istigraq dafay ëmb dafay ëmb mbooleem luy ak cant ñeel na yàlla subhanahu wa taala mbooleem luy ak cant moom yàlla subhanahu wa taala moom moo ko moom moo ko yeyoo mu ne lillah yàlla subhanahu moom moo ko yeyoo kon li nga xam ne mooy eh, ak jaamu di ko jaam moom yàlla subhanahu wa taala moom moo ko yeyoo moom yàlla subhanahu wa taala mu ne rabbil alamin comme nañ ko waxee woon léegi yi nga xam ne mooy buuru bor euh, di boroom mbooleem mbindeef yi boroom yi mbooleem mbindeef yi ne ci kaw suuf moo tax mu teg si mu ne wa kullu ma siwa allah aalamun wa allah lépp lu dul yàlla subhanahu wa rek mbindeef lu dul yàlla bokkul ci yàlla subhanahu wa taala rek mbindeef nga ci monde yi nga bokk mu ne wa ana waxidun min dalika al te man mii ci mbindeef yooyee laa bokk dafa bokk ci monde yi nga xam ne yàlla bind na leen monde doomi aadama monde jinne yi monde rab yi gàncax gi ila axiri léegi yow ci mbindeef yooyee nga bokk kon yàlla subhanahu wa moom rekk moom moo yeyoo ak jaamu amul keneen koo xam ne dees na di ko jaamu ku moom yàlla subhanahu wa taala baat yi nga xam ne nit ki daf koy wax ko niñ koy waxoon léegi ni koy waxee si làmmiñam noone la koy dëggalee ci ak jëf ba du jaamu keneen ku yàlla subhanahu wa taala xam ko si ay àqam jox ko ko moom yàlla subhanahu wa taala te àqam bi gën a màgg ci àq yi mu am si ñun mooy wée àqu wéetal ko wéetal ko bañ koo bokkaaleeg dara bañ koo bokkaaleeg kenn ndax moom rekk moom moo def lu kenn deful moom rekk moo mën a def lu kenn deful kon moom rekk moom moo war a am si ñun lu kenn amut te mooy jaamu ko comme nam ko waxee woon ala lahu alxalqu wal amru tabaraka allahu rabbul alamin yàlla subhanahu wa taala mi nga xam ne moom al alxalq moom rek moom war a am si ñun ak al amr al amr mooy dañu digal ñuy def muy tere ñuy bàyyi di ko wéetal si loolee ndax moom moo am si ñun ak xalq te mooy bind gi mu bind moom yàlla subhanahu wa taala jaar ak ñun fa mu jaar ñun amul kenn ku mën a def loolu ku dul moom kon ngelawaay moom rek moom mooy ak jaam kon si ponk bu njëkk bi di cosaan bu njëkk bi la borom téere bi taxaw di faram-fàccee nit ki buñ ko laajee ana kan mooy sa boroom lan lay tontu tontu boo xam ne fii ci àdduna dana la jëriñ ci nga xam dëgg dëgg dëgg dëgg mooy lan waaye nga taxawee ko ci ak jëf ba ëllëg yowmal xiyaama laaj boobee buñ la koy laaj ci bàmmeel nga mën a mucc te la lay muccal mooy ngëm nga nga sa àndaloon fii ci àdduna comme nañ ko junje woon sànq si aaya bi yuthabitu llahu alladina amanu bu ko defee si bind yi di ñëw dina la wax ba léegi di faram-fàcce ponk bu màgg bii di cosaan bu njëkk bi ana nan lañuy xamee yàlla subhanahu wa taala ndax loolee nit ñu baree baree bari dañ siy réer dangay aw aw di ko woote woo naan waaw ñun dañoo xam yàlla waaw nan la xamee yàlla subhanahu wa taala ndax dangay rëdd saw yoon wi ngay xamee yàlla subhanahu wa taala bàyyi fi yoon wi yàlla subhanahu wa taala leeral ci alquran ne noonee lañ koy xamee bàyyi fi yoon wi yenente bi sallallahu alayhi wa alihi borom bi subhanahu wa taala ne nii la ñuy xame yàlla nga ne ko fi ñukk jël yoonu seytaane te naan yow yaa xam yàlla subhanahu wa taala loolee lépp dina ñëw si e, bind bii di ñëw waaye bindu tey bi ñu xam ne kon e, si ak tënk mooy laaj bu njëkk bii nit ki buñ ko ko laajee ana lan lay tontu waaye ñu xam ne tontu ba nekkul rek comme ni ko ñeen ñi di waxee ana kan mooy sa boroom nga ne yàllaay sama boroom comme niñ ko waxee waaye dafa ëmb ñaar mu ñuy tuddee tawxid e, ar rububiya waaye ëmb li nga xam ne mooy tawxid al uluhiya mooy ne yàllaay sama boroom mooy kii ma bind mooy ki ki may wërsëgal mooy ki may defal nangam ak nangam loole mooy tawxiidu rububiya si toppatoo gi yàlla subhanahu wa taala toppatoo mbindeefi waaye loole dafa am lu muy waral la muy waral nag mooy ah comme yàlla subhanahu wa mooy def loolee kon moom mooy yeeyoo ak jaamu moom kese laay jaamu duma ko bokkaale dara loole faw mu bokk si tont bi ngir nga mën a mucc comme niñ ko waxee woon ndax li eh, la mën a li la mën a muccal mooy wéetal googe moo lay génne si ak shirk bu fekkee loola amul rek ba léegi génnoo si ak shirk yéefaru màkk yi nga xam ne ñoom la yenente bi sallallahu alayhi wa sallam daan jàmmar lool ñoom si ay xare daganal seen deret daganal seen alal la ko waraloon rek mooy masala boobu lañu nanguwul woon mooy xam nañ ne yàllaay bind xam nañ ne yàllaay wërsëgal xam nañ ne yàllaay def nangam waaye nangu wuñ koo wéetal ci ak jaamu ñàkk bañ gi ñàkk bañ koo wéetal ci ak jaamu moo leen bañ a dugal ci lislaam moo tax dugguñu ci lislaam moo tax seen deret daldi dagan moo tax seen alal dal di dagan kon jullit bi yow muy woote ak njullit li lay muccal ak li lay def ab jullit li lay def ku wéetal yàlla subhanahu wa taala mooy euh, ponk boobee faw nga xam ko faw mu leer ci yow nga nangoo wéetal yàlla subhanahu wa taala ci jaamu giñ koy jaamu bañ koo bokkaaleeg dara ci lu ndaw ak lu rëy wallahu taala a'lam wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in